bismillah bismillah inna wali yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah seen doom day mu ñëw indilee suñu lamb lundi 30 novembre gros titre ne demee moom moom Malick Thiandoum wax na ci Jax production wax na de 5 ans yi mu ci lutte seen doléance bi gros titre noonu la demee troisième pas ñu dem fenêtre yi comme suñu lamb nu mu koy defee saa su moom Modou ba mu génne nag wane ay musculam ñëpp nangul ko moom Ama Baldé moom mi mi ngi génne di Bombardier moom Gaston Mbengue moom sëñ Modou Niang teewu ñu fa dem ñoom ñooy grand absent yi Covid 19 ñu ne Modou Lo Balla ñoom ñaar ñooñee est dinañ voyage dem waajal li nga xam moo di seen i combat force Covid 19 ñu ne promoteurs yi nag promoteurs yi nañ kon ku nekk sa ndàmpaay di ko jot de di nga ko jot semaine bii bii ñu nekk nii moom Babacar Dione ñu gën koo xam ci Babacar bu Leewtoo suñu làmbaay xam ne ne jóge na Leewtoo nag jóge na Leewtoo de fan la dem nag foofa jara teg baaram ko quatrième pas ñu dem physiquement mi ci état mi ngi ci forme mentalement lépp baax na ndax loolu la wane couronne roi a arènes bi nag nekk ci xelam kese kese conséquence roi des arènes bi rêve Modou kese mooy couronne roi des arènes bi des fi nag ba ci kanam ndax ñu bari gëmuñ ne moom Modou moomee roi des arènes dina yàgg ci moo tax ñett yooyu yëpp mi ngi dajaloo nag ci kii nga xam moo di roi des arènes looloo waral suñu lamb nag di xam le moom Modou moomee nag pare na de pare na nag pour jàpp Ama Baldé defar ko bagage moom Malick Thiandoum ca i rajo mooy wax de nee diggante Modou Lo Ama Baldé li ma leen mën a wax ba mën leen ko wax mooy taq-taq yi dina bëri de taq-taq yi dina bëri lool lool lool ndax moom Modou Lo moomee wane na nag état physique bu doy waar te Ama Baldé ñëpp xamee nañ ko de physique nag état physique bu baax moom musul ñëw ci làmb te parewul te moom la Modou le roi des arènes moomee wane na ne couronne roi des arènes bi waaju ko waaju ko sax Matar Ba ministre des sports gannaaw ba mu jàkkaarloo ñii di député yi mu ne nag Alioune Sarr day des de day des nekk lii lii conseil état bi nag wàllu ndax am na ci xam-xam bu yaatu am na ci xam-xam bu jéggi daya waaye sport yi nag sport yi Sénégal yëpp yëpp nag kañ lay tàmbali moo jar a teg baaraam ndax kenn kenn kenn xamugu ko waaw moom Tyson 2 gannaaw 2016 la gëj a ngem bu gëj nag mi ngi jëm nag ci combat bu saf-saf diggante mook super waaw bu parcelle mbooloo moom Tyson 2 moomee ñu ne nag gannaaw nag ba mu raxasee nag li nekk ci kanam depuis 2016 ba léegi Garga 2 la fi daan daan fi assurance daan fi góor moom Tyson 2 moomee mi ngi ci 16 victoire 2 défaite super frank mi ngi ci 9 combat 9 victoire Asbekaay Mbaye gannaaw nag moom Asbekaay Mbaye waa CNG nag dossier boobu ñoom ñoo ko mën a leeral sixième pas ñu dem Jax Wrestling Production moom Jax moomee nag ñëw na de jébbi na lu yaatoo yaatu sixième page bi nag jaar-jaaram ci li nga xam moo di lutte simple moom Jax moomee mooy wax de nee nag a ordonné de ñu commencé woon nag tàmbaliwaat sport man wàññi bi Production man mii cinq ans yi ma def ci lutte simple bi rek nag vingt quinze millions quatre-vingt-quinze def naa ko ci biir li nga xam moo di lutte simple bi septième pas waa ARELS jàkkaaroon nañ ak CNG bi de waaw teg nañ nag génne nañ seen doléance nag

laamu comme ni ñu koy defee saa su nekk jërgal laamu tey kan moo fa nekk Modou Lo loolu roi des arènes Rayba moom rawaay boobu mooy wax nee na ko Modou Lo conférence de presse bi ko war a safal ba mu saf sàpp ndax làmb yëngu ñu bañ fàtte masque yi waaye ah, moom la roi des arènes Modou di ko tontu mu ne ko raay may la roi des arènes maa war a yëngal làmb ba mu yëngu masque yi duñ ko fàtte acci ñu dem yéen yi papa peu yéen kaay yi koy may Pape Bouba Diop l' international onze l'Ikhlas gars di ko ñaanal fi jëm yàlla ko gënal fi jógee la wax borom teer sa àjjanay firdawsi jaaroon dem naa wasalaam